Hello, hello everyone, you know the deal, this is Dabzo the Ghost, le plus jeune des plus jeunes présentateurs du Sénégal. Re-bienvenue, chers internautes qui Sen Média. Les fois à votre portée, mais aujourd'hui le rap, l'écriture sera à votre portée parce que nous dalal ndanan, un gars bo xamantene ni inspiré na génération yu bari, un gars bo xamantene ni comme nous ko waxe, texte bu it bu fi génn King Crew muy auteur donc borom Medina borom Sénégal borom it donc dañ koy bàyyi mu nuyoog askan wi bu ko defee ñu ñu dugg ci waxtaan bro ñu ngi lay siyaar. salaamaaleykum c'est vraiment Mangi. Mangi Nio, de de l'invitation, di de l'invitation bi vraiment un kontaan ça fils fii sama yeah man le crew Mori aka de Ghost aka de soleil casquette directeur artistique JTR euh, directeur artistique Mia dit Ouza pas mal d'artistes artistes <clears throat> que ci game depuis bientôt bientôt 20 ans je ngi ci donc te tubaab yi nee ci loo nekk mille heures normalement da ci war a nekk nga ci xam si vingt ans vraiment may content trop ci invitation bi di la bàyyi ñu. non tey moom dañ def waxtaanu xam-xam quoi parce que <coughs> boo tooyee ko am xam donc il faut nga nga nga donc mais on aime savoir, mhm. en fait Crew il s'affiche beaucoup plus que que. comme un writer mm. un gars buy bind ay texte qu'un qu'un rappeur comme bu ñu ko bu ñu ko xamee woon bu njëkk quoi lan moo waral loolu noonu. Euh, question bu bu intéressant la parce que ñu ñun les rappeurs euh, dañu on aime critiquer dañu bëgg di critiquer ay ay tout le temps dañuy cri dañuy critiquante suñu biir la plupart tu vois léegi ñu nekk ay xale nekk di rap mais tout le temps dañ doon clash mbalax bi. naan mbalax bi amul sens gars yi dañuy wax ni ay rapajo jaar nañ fi def ay musique bu amul benn coono comprends nga mais à un moment donné on a bon man man personnellement man sama sama rêve mooy moo nekkoon à bas âge changer musique sénégalaise loolu moom loolu moom moo ma moo ma moo ma moo ma tax a dugg ci moo ma tax a dugg ci musique moo ma tax a doon li ma doon tey tu vois parce que dama dama mës a am benn vision ci ci ci ci ci musique bi. Hmm. temps xale dañ doon wax ne. mbalax bi lii la mbalax bi lee la mbalax bi dafa kii mbalax bi après quand on a grandi on a dit pourquoi pas ñu dem changer ko su comprends mooy maanaam waruñu nekk rek di critiquer di critiquer mais ñoom am nañ musique bi mais amuñu contenu bi tu vois bi am na am na contenu bi mais rappeurs yi ñoo war a déplacé wu dem ci mbalax maa ni euh, tey ku ci mel ni tonton mag mi ngi TFM tu vois tey ku ci mel Gaston liggéey nag Youssou Ndour tey ku ci mel ni Max Crazy bindal na ay ndaanaan yu bari mhm. tu vois il faut loolu li manqué fii nii ñun ñooy war a dem ko parce que bu weesoo lépp mhm. ñun ñëpp on est bu weesoo lépp ñun ñëpp on est on est on est des Sénégalais mhm, comprends que ben instant def naa rap génne naa génne naa AP bon le rap ma rap vraiment lu ci sama ci sama carrière. Mhm. mais par la suite quand j'ai commencé à travailler avec Mabo. Mhm. on a fait benn son yaay après cakas cakas. Mhm. affaire bi dox tu vois après mo def Adiza ñu def di def tu vois affaire yi dox j'avais même du mal à à à nekk ci carrière de temps en temps parce que tout le temps tout le temps tout le temps offre demande bi dafa doon dafa de dafa donner bari quoi. Mhm. Euh, loolu moo gën a présence ci ci scène musicale mhm. parce que je me dis que man suis ci kaw scène amul bon sens alors que je peux être derrière 30 personnes. elles seront au devant de la scène. Mhm. je pense que ce qui gën a bénéfique ci ci ci ci xel. musique bi et je pense que durant les derniers 5 ans, mhm. peut-être y nañ un changement bu ndaw par rapport la musique Donc mhm. donc rêve bi a commencé di réaliser quoi. Mhm. di ñaan yàlla may ñu fekkee xam a ñu changer gën a vraiment. mu quoi euh, on aimerait aussi savoir. parce que bokk bokk nga si artistes yi gën a tax nit ñi xam Didi Record Sénégal. à travers freestyle session freestyle yi nga doon def. Mm. ak ak DJ donc mm. vraiment mu nekk mu nekk ñu ngi koy ñaanal fi mu nekk gënal ko gënal ko fi mu jógee. Mm. gisatuñ la bu baax a baax ak waa Didi Record bu fekkee am na ñun public gisuñ ci gisuñ dara est-ce que nekkul ne li li Paul wàññeeku moom moo moom moo ralentir. activités yi foofu noonu wala moom moom moo tax relation ak Big Bird demeetul noonu noonu. non non non man ak man ak Big Bird amuñu amuñu problème déjà sama jabar moo koy sama jabar dafa yor fast food moo koy jaay reer tout le temps ñoom ñaar ñooy nekk donc amuñu benn problème c'est juste que euh, dafa am début am digg mhm. am fin ci lépp nag te di Record dafa dajale woon ay ndaanaan yu bari ku ci mel ni man ku ci mel ni Korem Kurumkaax ku ci mel ni DJ Paul ku ci mel ni Foleuse ku ci mel ni OMG Mami Victory Illégal mhm. ci ci saati Torres ci saati day freestyle tu vois. Mm-hmm. mais bañ demee benn instant tamit man damay bëgg teg sama label. Mm-hmm. <laughs> tu comprends bii bët day bëgg teg labelam. Mm-hmm. day ku nekk da ngay da ngay dañuy màgg. xam nga mënuñu mënuñu continuer ay coup yu bëri. nekk ci ben ci benn mbaar. di mbëkkante benn instant ma jël sama yoon. comprends que j'ai travaillé avec OMG tey sama EP. Didi Record laa ko defee. waa Didi Record m'ont permis de m'exprimer de m'exprimer artistiquement. comprendre te instant boobu non maa ngi woon maa ngi woon naati direct. tu comprends donc ba tey ni une relation garder ay mais yu nice mais on travaille plus <coughs> on travaille plus liggéeyatuma ak OMG mais maa ngi am ay relation yu nice avec mon. te Didi di ko dara Didi au fait benn instant Karim dañ ko tëj instant bini, nii. koy une pensée pour lui di wax ne <coughs> libérer Karim aussi libérer libérer Nitdoff et libérer aussi tous les prisonniers tu vois je dirais pas politique mais ay prisonniers quoi ay sénégalais yoo xamante ils ont juste tenté wax seen ay xalaat nous nous nous nous nous nous donc Karim dem bi après OMG c'est ma se après ñu am doom da ngay da ngay da da jël pause tu vois Fowler gis nga instant bi il est maintenant mu ci affaire de cinéma xam nga man maa ci affaire de bind donc ku nek après da nga da nga jël sa yone quoi lolu motax mais je dirais que tey am lu bëri tey ñu koy li nga ne ñu koy askan wi record tu vois parce que ay xam-xam yu dajale woon ne ñu ko mélanger et tout tu vois mu doon feeñ ci son yi des doon def ak Alaaji Ndaanaan Qatar hmm. son yi ma defal OMG Côté Côté. ak ñu dem mhm. donc temps yooyu noonu Free illégal mami bi ci lañu ci fël mhm. après benn ci lañ teg album donc mhm. on a on a on a fait beaucoup de choses là-bas ah mais à un moment donné c'est c'est c'est <laughs> gis aussi freestyle yi nga doon def yu ci bëri. Mhm. même su nekké 100 90 pour intro bi. DJ Paul moo ko def quoi. Mhm. même freestyle bi nga mujjé génne mu nekk bu gudd bi. Mhm. xam-xam bu bari bi nekk fofu noonu donc c'est c'est c'est ba légui DJ Paul moo fa nekk sa relation ak ak DJ Paul ba mu amoon facilité bobu non inséré wu say sang noonu. au fait Paul Paul je dirais musique moñu bolé mais musique bolé wu tu vois musique motax ma xam ko mais après musique bolé booleetuñu quoi. vraiment mang koy ñaanal peut-être fu mu gënal ko fi mu jóge nit bu baax la won mais vraiment Paul Paul sama xarit la Paul bama ñëwé di di record pour def album bama waxtani ak Bieber ba paré parfois Bieber da doon jàngale ci Tivaouane quoi da doon il revenait les jeudis mais à chaque fois bu Bieber demee mhm. c'est Paul qui enregistrait l'album tu vois moom en fait freestyle 10 minutes bi mhm. <coughs> ma jox la anecdote mhm. bama ko défé ba pare dama dem ñibi Bieber déglu ko déglu ko ba mu jeex mu ne ma non kuréel li dafa guddou

parce que quel musu ko def te li dafa nice quoi man gëm naa ne man li su crew ñoy fanaan ñoy nek tout temps suma ma captiver ma déglu ko 10 minutes sama temps mais ñëpp dañ ko déglu 10 minutes mhm. bi wala ko bon donc peut-être cofee la li ma bëgg la affaire yooyu <laughs> tu vois bilay defoon nañ ben ben coupure ben 5 minutes pour mhm. proposer mako xam nga ma koy remercier wat ci gëm bi ma gëm parce que gëm nit yombul. Mhm. da ngay da nekk ak ay nit yoo xam ne yéen a màggandoo. Mhm, mhm. ku ci nekk am nga ci expérience say xarit ñi nga xamante ne ñoo lay war a booster à bas âge. nga teel a gëm li def teel ci génn. ñoom ngay njëkk a xeexal. avant ngay avant ngay xeexal keneen. donc vraiment pour suñu relation mag moom leneen la. maa ngi maa ngi maa ngi ciy profité di nuyu la dara euh, ak bébé Amina. c'était c'était gis naa dama ci continuer rongoñ dina non non non même pas dina dina génn non kaana du jooy Paul c'était ah kaana <laughs> Paul Paul c'était c'était vraiment eh, un, un gars extraordinaire quoi bëggoon nañ xam mm. aussi mm. ci sa ci sa ci sa ci sa carrière mbind mm. ban ban nga commencé nek concentré wu carrément ci ci ci mbind mi gis na li suma ci nekké peut être mën na mën na mën na mën na mën na mën na am le le maximum man nekké xalé sama papa dama jox 100 francs

<laughs> c'est CNPT sixième laa doon def daare <laughs> tu comprends donc somme ma nee kañ nga commencé man man xaw ma xaw ma kañ commencé. parce que musuma bañ a commencé. est-ce que tu comprends dama mon rek. direct. ci la musique m'a toujours parlé parce que ba ma nekkee j'avais du mal à m'exprimer ci donc après yow da ngay gauche. Mhm. da ngay gauche man dama jàpp de dama gauche mais bama ma ba màgg ba comprendre ba xam sama bop ci la xamné ne gauche ma. Mhm. peut-être comme on dit chaque chaque personne est unique peut-être demain je suis un peu. Tu, tu, tu, comprends mhm. Nous mag gars ni xalaté nous mag gars ni leur la, leur façon mhm. de percevoir les choses té lool la la nek di jëm créer tu musique ni moy ñu ñu dég non non vas-y hein? vas-y yeah sama sama sama perception ci musique mm -hmm. lool la japp ni peut-être tay ñi ngi gis né musique bi mi ngi mi ngi change parce mhm. que lo, mo lool mo mësa nek sama objectif moy nek le premier le premier bindkat wala wala wala compositeur wala whatever lu mu mën a bi jël musique Sénégal mhm. liggéeyal jigéen sénégalaise ba mu dem toog Grammy mhm. Awards ci États-Unis mhm. États-Unis ci américains ñu lak anglais wax turam wax Sénégal mu jóg sol robe ma gunge ko mu jog dem jëli trophée bi ñu indi ko Sénégal tant awma lolu duma baye ma est-ce que tu comprends parce que ñoom wiskit seen mm-hmm. ingénieurs yi ëpp ñu ñu xel. Mm-hmm. ma liggéey naa ci effort bi ak euh, waa Barak Adama Adama seen seen Sénat Vision moom may opportunité yooyu Moustapha ma koy remercier de passage mu may ma vraiment opportunité clé jox ma 10 jours na ma dama bëgg en 10 jours nga defal ma 10 sons et j'ai confiance en toi te Barak mi ngi taxaw te xam naa ne mën nga ko ba ma koy wax man pour man sax da doon mais après on l'a fait on l'a fait en 8 jours est-ce est-ce que tu comprends. donc Barak indi équipe équipe bi fekk fi équipe sénégalais. Mm. mais bañu démé vraiment dañ ñu des mentions spéciales. té Barak daf mané suñu génie ñun mo mo mo, moo moo yow génie nga. <laughs> est-ce que est-ce que tu comprends. yes il faut que gars il faut mm-hmm. Mm-hmm. qu'on qu'on qu'on qu'on apprend à nous respecter. Mm-hmm. il faut que ñun ñu def fulla suñu musique. xam ne lii genre nekkul kay nekul outou kay buzz. nekul pour jaayaale sa bopp. musique art la. Mhm. tu comprends des art artiste moo def. donc ñi ñi nga xamantene ne dañ ci nek ndax buzz. Mhm. peut-être maa ngi ñaan yalla yàlla na leen yàlla may lu gën lolu non ñu dem. Mhm. ñu bayu ñok suñu musique de toute façon depuis 2017 la professionnaliser wu. depuis 2017 ba légui maa ngi teg école man ak Blé boo il y' a beaucoup d'élèves yo xamante dañ leen ciy jàngal di leen jàngal bind di leen defal créer ay ouvrage yu Cheikh Hampâté Bâ di leen jox ñuy lire après ñu defal ma ci texte bu ñu ma defalee texte ku ci nekk ci ñoom damay xam sax tu penses comment naka ngay naka ngay percevoir parce que man tamit lire naa ouvrage bi donc ñëppay def texte ku ci nekk après damay xam ban façon nit nga ban fan nga dëkk mm. ci sa biir xel fan nga dëkk comment tu réfléchis donc à partir de là ci loolu la ñuy booster utal le canal nga dem et on a commencé depuis longtemps nous am ku ñu nous am mais on le fait Nous liñu ñu la musique bi di fay mhm. dañ koy wat ci musique bi parce que musique musique bi lañu bëgg mu avancer mu quoi tu vois nous on n'a pas besoin d'être là à dire à dire à dire mhm. ñu liggéey ba ci kanam Je ñu jëlé ko fi sax au moins ñu pousse mu dugg Mali kon fenn <laughs> demagul ah gars musique mu ngi groupe Iba <laughs> day ñëw fi ko Ouais. n'est-ce pas mhm. man je pense que n'importe quel artiste sénégalais mmh. warul un problème pour malien et consommer quoi, parce que ben très moo dox suñu diggante te la musique elle est universelle mmh. mais gis gis nañu aussi Vigy dans le festival alaikum, bi nekkoon Mauritanie maa ngi si DJ Paco de passage donc il mmh. y avait il y avait beaucoup de monde gars yi di on sound mi comme ñoo bokk kër donc mu ngi pour man mu ngi commencé mu ngi dem c'est la c'est la nouvelle génération et que Vigy li def c'est original c'est typiquement lui j'adore sama dom la. Mhm. parce que papam sama xarit la. Mhm. tu comprends te fu mu judo, c'est voilà judo <laughs> donc artistiquement du ma parce que c'est normal. medina ku fa judo, même bon deful artiste art dina nek ci yow. parce que c'est un quartier culturel tay amna plus de medina amna 100 cent ans. dépassé les 100 ans donc fi ay mag ñoo fi dëkk quoi. te quartier la bo xamantene ne gars yi toxuwuñu

li neex moy li intéressé nit ñi te vu que li mhm. ngay def mi ngi intéressé nit ñi bu teggi mhm. loolu moo am solo yan yan artiste nga nga jot a liggéey fii Sénégal bari nañ yow limal ma non yow lay laaj <laughs> man ma lay laaj tey laaj man ma <laughs> la delloo laaj bi waaw man ma la delloo laaj bi joxat la paaka ne la xooli ko léegi xooli laaj bi sénégalais ci bëgg bëgg nañ xam parce que mhm. bari na quoi affaire yi bari na quoi donc bëgg nañ xam artiste faar yo xamanteni ni peut-être it yu bëri donc gars yi bëgg nañ xam quoi. vraiment maa ngi liggéey ak euh, bari nañ Mia gisee sama rak la avant avant ñuy liggéey ñu am ay relation yu nice ma xam papam xam yaayam di lekk këram di naan këram fanaan naa këram sangu nag <laughs> vraiment xam nga sama rak la quoi. Mhm. Adiouza aussi ñu sekk ay ay liens yu nice. Mhm. te depuis 2017 ba léegi ñaawul. Mhm. tu vois OMG aussi on a eu à travailler Queen Biz on a eu à travailler. Des Major on a eu à travailler euh, Pape dernier album bi suis Superman Love Damani Amore, prévention routière Wali, Ligue na ci ji nyoko Ligue, ak euh, aussi vous comprenez euh, akan hmm? Hmm? <laughs> <laughs> quoi

yee mu nekk tamit booy Medina comme ni ma lay wax Medina yi daanaka daf lay jur <laughs> xam nga ay ñoom Mamy Victoire yi ñoo fa def ñoo seen album def ma ma def ma def vraiment ce une réussite Youssou Ndour ñëw fekkee ko ñu joué ay yu nice xam nga ñu am ay moment yu vraiment émouvant yu ñu partagé mhm. Aïda Samba aussi album bi génne nii nangu bi son bu mu tuddee album bi maa ko def mhm. euh, dama wax Youssou Ndour sama xel dama dem ci Aïda Samba <laughs> mais mais ci euh, a vraiment ci ay non c'est les artistes qui sont à l'aise avec avec moi. ok tu comprends c'est moi je suis à l'aise avec tout le monde parce que nekkuma di liggéey dama nekk di def ma passion. te li nga li ngay def fais ce que tu veux et tu travailleras toute ta vie sans travailler une seconde. yeah that's right. <laughs> yeah mon dieu ma bëgg laay def moo tax nombre de sons de ma par jour ça dépend de ce mood ak ni may ni quoi. ok yeah à part ça à akan bleu. international sur le plan international ok Je suis Belgique. Euh, non euh, Angleterre. Angleterre ok Soldier Ems euh, aussi affaire vraiment mangi mangi côté international on a on a travaillé mais moi je suis parce que moi leneen la kon yow bokk nga ci li tax soldier ak ak soldier di class advisor yow. <laughs> parce que soldier temps mu ngi pic advisor pic yu tàng jër. kon yow bokk nga ci biir. mais advisor non yaa ci biir yaa ci ar ar ar. ngi koy clash te man alors que tous les deux je travaille avec tu comprends <laughs> advisor day taal oto ñëw sama kër <laughs> Mauritanie. donc bul essayé sax jaxase ma samay. jaxase ma la parce que. solde sama solde sama xarit la. solde sama solde sama xarit la. tu comprends. Euh, am na ku ma xalaat léegi mais dem na. fàtte fàtte nga ko quoi <laughs> mais mais mais est-ce que est que liggéey bi ngay def aussi droit yaa ngi koy jot quoi parce que bind kese ñu fay la c'est bien mais je pense que ne waroon na am war na am benn benn royalties buy am si ci ci droit yi parce que foofu la xaalis bi ëppee. Euh, loolu dañ koy lijjantee au niveau de la SODAV je pense. en tout cas maa ngi leen di ñaaxaat waa SODAV surtout ñu gën a ñu gën a góorgóorlu parce que musique dafay dox. Mm-hmm. te àddina buy dox da ngay dox ànd ak moom. gisoo tey kër yi gisoo architecture yi dafa changé. day évoluer tout évolue. Mm-hmm. seuls les hommes ne changent pas est-ce que tu comprends. Mm-hmm. donc il faut qu'on change. parce que musique tey mu ci plateforme yi mu ngi ci digital bi. Mhm. comprendre nga donc ñun suñu xaalis ñoom lañ koy dénk donc ñoom de fu ñu teg suñu musique ñoom lañ ko war a dem seeti. vous comprenez affaire bi nekkatul rek ci ay droit radio droit voisin ay sama son yi teg ci télé. Mhm. parce que léegi am na ay ay ay beaucoup de plateformes de streaming yoo xamante ne dañuy fay. Mhm. te loolu yëpp je pense pas que ñoom egg eggagum nañ foofu noonu. tu vois parce que ba léegi ci ay affaire de ay ay répartition lañ nekk te alors que affaire yi dépassé na loolu il faut que bu fekkente je dis pas que Sodav la mais. loo gis ci kaw lay lay dooyee tey benn Amadou sàll benn Macky Sall wala whatever ku mu mën a doon tey bu dalee ci sama message. Mhm. nañu xam ne. manam bu fekkente ne dafa soxla ay jumtuwaay mhm. yu ñu war a dolli SODAV mhm. pour nga xamante ne artistes yi nekk fii nii di fanaan ci studio yi di lekk ñu ñu di ñafe tout le temps mhm. pour seen xaalis bañ a réer mais nañu dañ leen jëndal jumtuwaay yooyu noonu ñu mën ñu mën ko teg fii fu waay mën a nekk ci àddina bi bu tegee sa son nga mën a xam ne diw teg na sama son rajo Caraïbe instant bi mi ngi dawal son wu Dieyna wala mi ngi dawal son wu Mia machine bi enregistré ko année bi ñu yónnee leen mel ñu fay gars yi xam seen seen seen xaalis fan la nekk parce que ñun suñu xaalis mi ngi ci mi ngi fii nii mais on n'arrive pas à le récupérer parce que justement li ngay bind yëpp. non. chaque chaque village kese ngay jox mais après derrière tu reçois tu reçois rien. tu sais auteur comme comme comme comme comme ay comme ay qui day day mag tu vois c'est des trucs yo xam ne nga koy bay hmm. mais man je suis membre de la SACEM. Hmm. parce que sama sama SODAV c'est SODAV qui gère tous mes. Ajaccio mhm. au Sénégal tu vois mais boo génnee Sénégal même Gambie mhm. boo fa mhm. Ça c'est moi gérer sama son man maa ngi gis sama xaliss, maa ngi gis sama son fu <laughs> sama son daw <laughs> xam naa ko <laughs> nelaw ma benn et que musiciens yi aussi xam ci liñ nek. xam ne ci lu bëri xaliss lañ nek. ci lu ci lu ci lu riche lañ nek, ci lu noble lañ nek. Mm. tu comprends dañuy jël sen temps diko ko liggéey parce que Yalla du tour, ñaq ci suuf wasalaam foofa toj <laughs> ni ko gars yi di waxee on aimerait aussi am am sa sa gis-gis. ci ci li xew Sénégal actuellement nii pour ne mu ngi tax fu ne ñu ngi emprisonné fu ne ay cocktail Molotov mu ngi jóg fu ne on aimerait avoir yow nan nga gisee actuel actuellement Sénégal en tant que porteur de voix. am na am na am na am na sama benn son maa ngi naan doo liggéey sa doom waaye doomu diw sëyoo loo ko bëgg a jur wàlliw amoo benn talent bëgg a siiw tax nga joxe sa taat pour am interview. caga nga bu dee doo mës bañ am doom yu jigéen di fay mindaan fu ñuy jëlee li ngay toggee añ guddi ñu sangu génn fu leen neex fanaan dem nga ba njaboot te mësoo sëy bëgg xaalis nangu woo liggéey sa chaise dafa néew te sa langue rëy jàngal di taamu yow xanaa sa xel du tey jigéen bëgg indépendance tax mu laaj parité pour am baatu góor gel yi di biir ak a wëssin ndax Sénégal ñu ne laale mooy baaxu góor lu dul dëgg mën a yàgg changé woo sa jikko chaque année nga aji màkk teg ci doyloowuloo li la yàlla jox justice bénéfice bu bari moo nara lakk ñëpp ñi fi bëgg a tekki defi politique nombal tànk boo ko amee doo dugg dig ba léegi mënaguñu tànn njiit justice senegal bi dem ba diabolique da ngay laajte ndax Sénégal day dem. <laughs> est-ce day dem. <laughs> Sénégal. li fi xew nii. jàgg mm-hmm. na fi xew. waaw Mamadou Dia. waay mm-hmm. Abdoulaye Wade. Mm-hmm. Macky Sall. Ouais. je pense que ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp. ok tu vois parce que si ci alxuraan yàlla nee na moo wax ci alxuraan ne askan bu nekk. Mhm. dina xol nañu mel. Mhm. ma jox leen nit bu ñu mérité. wallahi azim yalla moko wax ci ça c'est vrai té foko yobu ci adina benn oustad du ko dindi. hmm moko wax. hmm nañu nañu xol suñu bop parce que da fay bax des fois ñuy sétu comprendre parce que fi Sénégal la plupart du temps nit ñi bu ñu defee erreur. Mhm ils ont tendance di ko di est-ce que est-ce que tu comprends di ko gars yi mooluñu. gars yi dañ may gars yi lii gars mais. yow la motax tax gars yi di la def tout le temps est-ce que jotul nga def autocritique yow. sa bop yow nga xol parce que. Mm-hmm. tamit si tu es seul. si mm-hmm. tu es souvent seul avec tes problèmes. Mm-hmm. le problème souvent le problème c'est toi. tu comprends. les gars yi di def critique ñu xoolaat suñu bopp ñi nga xamante ne ñi ngi jëli xaalisu fond musique dañ mhm. ko jëlaat indiwaat ko ci musique bañ ko def ay poulailler <laughs> je comprends moo tax bu ñuy wax ay musique eh. musique bi doxul musique bi doxul musique bi du dox parce que dañuy parce que gouvernement bi tey lenn rek ñu mën mooy déployer fond mhm maintenant nous acteurs yi ñoo war jeunes jël xaalis boobu noonu ñu transformer ko en quelque chose mm-hmm. pour benn Wizkid bu fi ñëwee tey ne fan fan la musique dëkk Sénégal ñu wan ko benn building ne ko musique fii la dëkk boo ko yéegee dina fa fanaan dina fa lekk am hôtel am piscine ci kaw am amener lépp am studio est-ce que tu comprends am am nañ am amener moyens am amener ressource bi am nañ xel bi mm-hmm. ñu ñu ñu ñu ci lu ñu def ci mhm. investir mhm. pas pour nous, parce que man xam man liggéey <laughs> pour c'est pour les générations futures bu ñu ñëwee ñu fi liggéey mhm. mais dañ naan mais ñun suñu mais a dépasser mais fi pot après <laughs> il faut que mu am kuy il faut que mu am koy point A yóbbu ko point B alors que ministre nous sommes dans dans dans la culture il faut que ñuy xool ñi dans ci underground mhm. parce que la plupart du temps nous sommes ñi ñi culture, nous di mhm. ah. liggéey liggéey bu metti amuñu temps wu dem ci télé bi. ñi liggéey liggéey bu metti amuñu temps est-ce que tu comprends et moi je vois beaucoup de bosseurs de télé bi. Mhm. ñoo xamante à dañuy chaque jour de télé vous comprenez donc il faut que nous ñuy ñuy Samba ce qui revient à Samba. nga xool nga depuis 2017 ba léegi depuis Kourou ba mu ñëwee ba léegi ci lañ fi dégg ay cakas-cakas. Mm. ñu jël naayjaa bi jaxase ko ak dara mu mu Sénégal. ñu ngi ñu commencé di dégg benn refrain bu simple buy tourner tout le temps. Mm-hmm. xam nga loxo bu la laal loxo loxo bu la tout le temps on te donne un truc boo xam tourner. Mm-hmm. après tey maa ngi jot ay gabonais ay camerounais yu ma naan Wolof, mais on arrive à chanter les chansons de Mia kon n'y ñu ñëwee ci yow war ñu son wolof parce que sama papa sénégalais mais Gabon l'a Judo donc j'arrive à récupérer des gens ñu ngi gëm quand nous mm. kon bu ñu Sénégal war nañ faire de la musique il faut que ça change il faut que nous change, il faut que il faut que nous ñu la ñuy musique il faut que ñu ci changement boobu noonu aussi ñu bëri jàpp nañ ne Ousmane Sonko moom mooy le candidat idéal pour changement boobu noonu ngay am affaire yi dox donc yow euh, nga gisee profil boobu noonu. Ousmane Sonko wax naa ko sama benn freestyle nee leen yàgg yàgg Ousmane day ñëw. ok est-ce que comprendre nga. Mhm. gis nga yàlla bu la nammee. Mhm. bu nammee yàq ci yow day raxas. Mhm. maanaam duñ ñëw rek def ci yow parce que njiitu Sénégal ki koy dooni mooy maanaam après Macky dafa war a doon pour. bien quoi. non non non ku ñor ku mature. est-ce que comprends nga man je pense que gàllankoor mënul ñàkk ci yoon. Mhm. parce que kaso yoonu pale la. Mhm. Abdou Diouf Abdoulaye Wade. xam nga am nañ am nañ fi Mandela am nañ fi ñu bu nga. Mhm. am nañ ñu bëri ñu comme exemple. vous comprenez donc Sonko dama koy wax rek ne ko ne muñ. bés dina ñëw chacun à son tour chez le coiffeur. tu comprends. te bu ñëwee tamit bu mu leen top. bu ñëwee. na ñëw parce que bu leen toppee day perdre temps comme Macky Sall nu mu toppee woon gars yi ay piège la ay piège la éternel Macky Sall ñu bëri amoon nañu yaakaar ci mu jël nguur gi tamit bien sûr bien sûr man rien sama yaakaar ah, ñun ñëpp yaakaar rek la ñuy am est-ce comprendre mm-hmm. mais Ousmane

Comment tu arrives à gérer toute cette économie-là Parce qu'il y qu'à 18 000, à 6 000, à 1 000, je pense que c'est de l'argent. quoi. Donc, c'est de l'argent. Donc, comment tu gères le business C'est toi qui gères Ou c'est Blé qui gère Ou <laughs> tu as un community manager qui contrôle tout quoi Mais si tu as limé le travail, tu a savoir que tu peux faire ça. Tu comprends dafa am ay nit yoo xamante ne ñu ngi liggéey. moi depuis le commencement. comme mhm. Blé.

il est tout le temps derrière, il soutient. Il m'appelle deux heures de temps juste pour voir mon petit man. Mhm. C'est pas, c'est pas, lol, c'est pas, c'est pas, c'est pas facile. Mhm. Ah, tu comprends, les boulets, ils vous soucient où, halat ay affaire pour y Oui, ouais. C'est vraiment cool. Fait pour nous les demander. Tous les projets, on les met ensemble. Bu naxaree ñooy nekk. Bu neexee mhm. On a notre vision. di ko di ko xëy Tu vois, parce que peut-être tey bu ma xaaroon du ma egsi fii. Tu comprends, comme on dit, agir être patient. Être, ouais, c'est agir en attendant. En attendant. <laughs> Yeah, tu comprends. Ouais. Mais la plupart damay gis fii Sénégal gars yi dañ naan jeunes yi dañ naan amuñu moyen amuñu moyen amuñu moyen man mabo, ba may bindal maabo ay euh, portable euh, soow cakas-cakas ci soow ak portable touche laa ko bindee touche touche est-ce que yaa ngi comprendre touche di ko brouillon <laughs> bind benn texte un texte fees na ma brouillon ko <laughs> mooy maanaam yow waroo may. Mhm. waroo may. ali bi ay ñàkk non comprends. Mhm. juste dama koy wax newuma di bandi bandilu. Mhm. mais je pense que c'est nécessaire ma wax pour jeunes yi may seetaan. ñu xam ne affaire yi doo ma def cakas cakas cakas cakas mu indi portable touche total tactile. dama daan bind muy neex. ma mm. mujj dama ko daan teg sax di jël bi ak parce que affaire da <laughs> neex tellement. <laughs> vous comprenez. <laughs> donc lo am rek dang koy wara mériter. Mm-hmm. comprendre il faut commencer. il faut il faut juste commencer li bon mooy ngay xaar parce que bëgg naa bëgg naa taximaan laa mais aw ma taxi. yooyu man damay dem manœuvre. Mm-hmm. def journée mi 2500 journée 4000. Mm-hmm. dajale dajale dajale ba am dara dem defar il faut il faut dara. parce que loolu nga bëgg dafa am 10 personnes lu koy laajandoo yàlla saa yoo koy laaj. yow yow lan la la jaral parce que da ngay dem examen nga pourtant yaa ngi doon 5 heures du matin de réviser mais tu te dis que est-ce que liggéeyuñ ma non gars dañ ma xeex non zéro point moo ma manqué. Hmm. alors que du loolu de. Hmm. juste dafa am ku doon 3 heures. Oui. ça c'est vrai. te yow fekkee woo ko mais yàlla mi ngi leen di xool yéen ñaar. moo tax lépp def def ci fulla def ci rigueur man je ne crois à ña man mosuma tim son di ko bind sax di imaginer ne ne lii du neex. da toj munul nekk. Mhm. il faut il faut gëm sa bopp il faut xam xam lan ngay def ci lan laa nekk. il faut mhm. nga maîtriser Sénégal xam sénégalais fan ban état d'esprit lañ nekk. Mhm. lan moo leen di lan lan. parce que ku nekk am na looy laaj. mais munoo ne lii laay laaj. pour nga mën a laal boo ko joxee boo ko joxee. dina ah ok lii laa doon laaj.

ne ma dama am benn série boo xamante ne vraiment gars yi soxla nañ soxla nañ la ci et que bëggoon nañ nga bokk ci quoi ma ne ko mais Oustaz man tourné man man man mosuma tourné mën na ñaata vidéo nga tourné yow daal nga tourné vidéo nit dof tourné nga vidéo dina baax seetaan mhm. nga vidéo yooyu mm-hmm. xam nga sama books bi yu kay books ak maawa bi sama boobu ma ciy jaay ay pompiteer jaay ay naajo. yaa yaa yaa nga farlu ko. seetaan seetaan nañ ko seetaan ah. ma mais yooyu nga def loolu loolu mooy tourné. waaw ah. soo mënee loolu war nga mën tourné ma ne ko ah bàyyi ma ñëw. premier jour damay ñëw ñu jox ma texte sama film bi naan bom bom. sama boobu ngay jaay ay peinture ay tableau art. waaw <laughs> donc loo loo loo loo doonul taalibeem rek. Mhm. doo nekk sëriñam. il faut nga nekk ci nga gëm ko parce que jamono yooyu may def loolu ku ma ne ma di nga nekk gosoraay te bi moy guerre soir mooy li ma waxoon sànq yàlla du tour ñaq ci souf danga ko dama ko nekkal mm-hmm. su même su ma bindul kiiwu ma ngi essayé lan la mën apporter tout le temps j'essaie d'apporter j'essaie pas de voler le, la vedette j'étais pas de montrer man ma diw man ma diw mm-hmm. mais j'essaie d'apporter ma pièce à mm-hmm. l'édifice mooy que ne pour suba buñu togué parce que tay ñun ñëp buñu démé ba am 70 ans yàlla da lay may. Mhm. mooy arrêt de jeu. arrêt de jeu arrêt de jeu yooyu noonu. Mhm. mooy chaise boobu ngay toog nekk pas gisoo pas yi des fois dañuy toog def nii. dëngal deux heures de temps <laughs> parce que ils réfléchissent. yàlla da lay may temps nga réfléchir. Mhm. ndax j'ai eu une vue remplie. ou j'ai eu une vie. léegi nag foofu noonu ay regret rek ngay am. oh parce que sa xel mi ngi fonctionner te sa yaram mënatu ko. est-ce que tu comprends. léegi gis nga gis nga regret yooyu ngay am. mën nga ko changer tey.

gëmuma ay wax c'est seulement ça qui compte hein. gëmuma ay wax te gars yi maa leen ko maa leen koy maa leen di conseillé ne leen chaise boobu noonu mhm. ñu ngi ñuy xaar ñun ñëpp fa lañ jëm ci am regret Défal. tey la quoi Défal, défal, défal. C'est 24 heures mhm. il faut il faut que mu nekk des benn heures bu rempli mhm. tu, tu comprends ouais. Il faut mon 24 heures parce que la vie, time, la vie, c'est une chance. Ouais. La vie, c'est une chance. T'es yalla, ça yo, fajar joté, mune la, Dabzo nga ne ko naam mu ne la jógal liggéey mooy pareeguma ak yow. mais moom mi ngi lay xaar. yow loolu yow lan ngay actionné pour moom mu jàppale la. tu comprends. donc boo toogee ci chaise bi bul mm. am regret. defal li nga war a def tey pour suba ma noppalu. safara bi ngay jaaroo ca ba ngay doon mag. <laughs> këriñ bi ndaw nga koy liggéey. da ngay fexe daaj. ba di soog a nag toog. ñëw. lépp neex na mooy say sët bu ñu ñëw naan la gars yi mm-hmm. signé nañ fee say son c'était c'était vraiment un plaisir. xam nga waxtaan bëgguñ koo dagg mais temps bi moo ñu moo ñu moo ñu def yëfu séeréer donc <laughs> c'était c'était vraiment un waxtaan bi amoon na punch amoon na xam amoon na li ci war yëpp donc ñu ngi lay kontaanee di la bàyyi nga tàggatoog ñu lay seetaan. jaajëf waay merci beaucoup seen <laughs> euh, média désormais léegi mooy sama chaîne préférée dootuma seetaan ñëpp laay désabonné <laughs> <laughs> merci beaucoup merci beaucoup ñu doon sétane euh, di leen wax que ne nii la Game Up ni la c'est c'est une émission révolutionnaire du mouvement hip hop parce que day indi ay punch indi affaire nice di leen wax que ne c'est pas seulement des des artistes rappeurs la ñu seeti ëllëg mun séti un DJ mun nañu seeti un graffeur donc c'est c'est vraiment ça seeti woon nañu fi Mia beatmaker ñu koy siyaar bu baax a baax di leen wax ni lay démé ça su c'était Dabzo Ghost I'm out for the next time bra